amul benn argument boo xam xam nga argument am na ak maanaam yaa argument ak argument bu dee da ngay joxe argument wala boog booy booy wax ak borom xel da ngay fexe toujours pour nga bañ a fooye sa xel yow soo ñëwee yow nga xam ne ñun suñu liggéey pour di produire xam-xam la di ko jàngale mooy suñu liggéey soo ñu bëggee jox loo xam ne ni lu dëgër la yow da nga war a am taxawaay yoo xam ne ni kenn du ko nattam hmm. donc argument boo ko naree teg sur la table dafa nara nag nekk argument bu dëgër hmm. waaye loo xam ne ñëpp gis nañ ko ci li ñuy justifier tëjum université yi Sénégal yi euh, boo xoolee déjà d'abord argument yi du sax benn parce que euh, ailleurs dañuy wax waxu restauration après ñu dem ba ci xam ne loolu du maanaam du du dëgërul trop ñu jëm laxasaale si mbirum sécurité surtout à Dakar dañu ni. à ñu ni sécurité police moo def benn rapport nii dañu gis ne suñu naree ubbi université dafa war a am problème mu kaaraange bu bu tara tara tar boo xam ne ni ñoom bu loolu dee am ñoom dañu ci raxas seen loxo maanaam daal. nga wax jooju ku ko wax nga wax nga wax ko borom boroom xel ni yow koo xam ne nii day xalaat ni yow xam nga kooku. waaw université ay ay ay ay ay bandi ñoo fa nekk wala ay jihadistes wala. defe naa ne xeetu jihadistes yi fa nar nekk de kenn mësul gis. buñ ko ubbee kon ça veut université. Ah, je sais pas xam nga loolu ëmb ci biiram. loolu mooy que respecté wuñu du sax jàngalekat yi mais respecté wuñu Sénégal. parce que université du sax Sénégal comme univers la mooy maanaam université pour àddina bi yépp la looloo tax ñun naan ko université université Cheikh Anta Diop ëppoon na ay at plus de 42 nationalités yi fa nekk maanaam àddina bi yépp a ngi fi ku nekk di sàkku si xam-xam ndax fi ñu teg ñi fa nekk ak université tour ba mu am soo ñëwee nag li am le premier juin ñun ñëpp ñu condamné ko amul kenn ku ko ñaw ñaawluwul tout le monde man j'étais sur le terrain bi affaire yi amee wàcc naa dem ba xool mais ba mu fekk foofu étudiants yi nga xam ne ñoom nee nañu sax d'ailleurs comme ñi defoon lii nee nañu dañuy ñëwaat ñoom dañu ne pare nañu pour jàmmarloog seeni moroomu étudiants yi defoon loolu mais benn minorité bu ndaw moo def loolu ndax mën ngaa jël loolu di ko retourner pour sanctionner non pas ñi ko def mais non pas sax étudiant mais société bi parce que boo tëjee université da nga maanaam da nga tëj c'est comme si yow boo ne ma sécurité am na. donc université dañ ko tëj. loolu mooy tekki ne Sénégal comme Nations uni après deuxième guerre mondiale Nations uni dañu dënk sécurité àdduna bi euh, juróomi état yoo xam ne ñoom ñoo amoon feu nucléaire. Mm-hmm. ñu ne leen yéen sécurité àdduna bi ñu ngi ko teg ginnaaw yàlla ñu ngi ko teg seeni loxo. Mm-hmm. léegi c'est comme si ñooñu dañu ne ah réewum Sénégal <laughs> gis nañ ne am na insécurité léegi nañu tëj Sénégal yéen sénégalais dem leen dëkki feneen. Mm-hmm. loolu lay tekki. mais état boo demee ba yow nga jàpp ne problème sécurité am na bërëb sangam mais ça veut dire que bu dee yoon la moom yow def nga xaaju yoon wi. yow li des kañ yomb na. parce que li lay bett mooy li la bett moo lay mën. mais boo demee ba nga xam ne lii jafe-jafe bu xeetu jafe-jafe bi war na <laughs> dina am yow xam nga déjà li problème boo xam ne kenn posé wu ko kenn mënu koo solutionné mais problème boo ko posé rek am nga déjà une partie de la solution mënuloo ñu wax ne sécurité mooy problème bi. waaye nga ne solution bi daal mooy nañ ko tëj ku nekk toog sa kër nga bëgg jaarale jàngale ma si lan ci xarala yu bees yi mais loolu mais loolu waxuloo ak borom xel da ngay jéem a nax Sénégal loolu waruñu foo tollu Sénégal tradition universitaire te moom la ñuy bàkkoo tout le temps mais université bi université centenaire la ba muy door Euh, embryon bi faculté de médecine la woon et hautes après ñu ñëw ba 57 ñëw Sénégal mais tradition bu ndaw boobu ñu am mën nañ ko bàkkoo mais boo ko bëggee boo bëggee cliquer benn bouton rek pour lépp ñu arrêté ko université du yéen a gis seetaan ngeen président Zelensky euh, dem dem ci mm-hmm. université bi. Mm-hmm. di waxtaan ak étudiants yi. ci guerre bi ci guerre dëgg guerre ngi ci digg guerre ñuy leen di bombarder xeetu bomb bu bon bu nekk hmm. Russie di leen ko envoyé terewul mais malgré tout université yi ñu ngi ubbi moom mi ngi dox di dem ci université yi hmm. ngir di gaay parce que université loolu lañ ko xamee hmm. deuxième guerre mondiale bi mu amee université yi nekk dans le nord de la France université nekk en Belgique waxatuma sax Londres nga xam ne c'était la ville la plus bombardée pendant la deuxième guerre mondiale bi nga xam ne moom la allemand it it dëkku Hitler bi ni ko anglais yi bombardé suñu bombardé benn ville foofu noonu pourtant université ñu ngi doon am ñu ngi doon jéem a taxaw parce que noonu la ñu xam ne université fépp foo jëm ci àddina lépp bu naree daanu une université yi ñooy taxaw d'accord ñooy doon les remparts fii li ñu fi teg li ñu wax ne kaaraange mooy problème bi loolu dara du ci dëgg. waaw leneen ñi ko wax bokk na ci recteur bi dagguma la waaw dama dama. bokk na ci recteur bi. Mhm. parce que moom la ñëw devant le conseil. Mhm. wax ñu léeg lii la loolu dama ni man loolu benn policier sax. mënul dugg si bopp benn policier naan la université dafa am problème mu sécurité dañ koy tëj loolu benn policier du ko wax. waa léegi dañuy wax kaaraange jàngalekat yi man mosuma dégg université. jàngalekat bu ñu fa agressé. wala bu ñu fa a de mort. wala bu ñu ko def naka sudul noonu. mais ñenn ñu ñu ngi naan waaw jàngalekat yi seen kaaraange nangam nangam. lan mooy problème yéen jàngalekat yi ban problème ngeen am. amuñu benn problème kaaraange te problème bu naree am encore fois ku nekk ñun suñu liggéey du aar. wat kaarange diw masamba wala ñun suñu liggéey mooy dem jàngale ji. waaw sàkku xam-xam d'abord parce que jàngalekat yow sa bopp. sàkku da ngay sàkku xam-xam bien sûr. dajale ko jox ko ñi ñi ñeneen ñoo nga xam ne ay ndongo la ñuy mm-hmm. ñëw di ko sàkku ci yow. Mm-hmm. loolu ngay def te loolu yëpp pour mu mën a am il faut nga am dal. Mm-hmm. il faut nga am kaarange. loolu mooy sécurité sécurité mooy nga am esprit tranquille jàpp ne fi nga nekk. danger moom sori na la loolu mooy sécurité. Hmm. donc soo demee ba nga jàpp ni ñii wala boog am ñu ne yow nga jooju dafa manqué mais yow du yow yaa war a gérer loolu afam ni ko war a wax yow c'est pas yow na nga dem jàngale ji. donc ñi gis na loolu am na ñun ñu jël seen matu matuwaay rek ñu jéem a saafara mais li am ba mooy argument boobu sax ne tient te li ñu ci man li ma ci métti rek mooy ay eh, waxoon naa ko ci benn seen benn naataango bi ma invité woon. ba ma nekkoon nag wax dëgg yàlla te waxuma wax du waxu politique en plus uh-huh, uh-huh. Macky Sall ñu koy jiiñ ne que dafa def ay fautes yu bari ci mandaam deux mandats yi hmm. man jàpp naa ne bu amee faute bu gën a rëy ci bi mu toogee seen boppu Sénégal ba tey bu amee faute bu gën a rëy mooy tëjum université bii ci diir bi nga xam ne normalement léegi benn semestre jeex na bu yàgg ba deuxième semestre moom war na war a mën a féete si ginnaaw parce que tey la le premier décembre. Mhm. premier juin lañ tëjoon bi li xewoon xew noppi. Mhm. ñu ngi dugg tey septième mois. sept mois. donc septième mois ci année académique waxuma sax année civile année mhm. civile dépassé nga moitié bi. septième mois boo ci duggee nii ci année académique moom laal nga déjà année deuxième. donc ça veut dire que Sénégal comme ni que ni sama secteur général di waxee David Célestin Faye mais. ça veut dire que UCAD dafa tardé presque un an. ci yeneen université yi àddina bi yëpp. d'accord yow nga ne danga bëgg am un pays qui émerge yow nga bëgg nekk un pays compétitif nga ne nga yow da ngay miser sur le capital humain mais incohérence boobu dama xamul kan moo ko mën a justifier ku bëgg a yow yow amuloo benn xalaat bu dul da nga tëj université yi mais loolu. kan moo koy teguloo ko ci loo xam ne lu dëgër la. li ñu fi wax yëpp dara amu ci. d'accord te li ma ci gën a metti mooy ministre de tutelle bi parce que li muy wax li muy àddu ci mbir mi lu néew la il fa fallu ñu invité ko benn émission xanaa à RTS la avant boobu sax li mu daan wax yëpp le Sénégal va lancé son satellite supercalculateur yow yaa ngi ci ay étoiles super super yaa ngi wax waxu. Euh, jaww ji satellite satellite lu ñu gisagul. ci jaww ji yow ñu ngi sur terre tu n'as pas encore réglé ça te si koo xam ne yow université nga bàyyi bi ñu doon grève ay 2010 2011 Moussa mussa Baldé dafa parce que SAES la bokk. waaw xeex yi ñu defoon bi bu aboutir ci deuxième université wu moo jam naajo bi. Mhm. moom ci la ci ci la bo daf ci bokk xeex na ci te Moussa da daan bind li muy wax bu ñu paree jox ko kaddu day dem ci kanam di fëgg sur la table kooku laaj moo tax mënumaa gëm ne ba léegi c'est la même personne que koo xam ne yow évidemment am na ne ma moom il n'est pas il n'était pas d'accord avec le fait que ñu tëj université mais li muy wax ci biti en tout cas waroon na ak loolu. waaw mais que c'est le recteur qui est allé vendre cette idée là moo tax le recteur là c'est un danger à la tête de de notre institution là je prends toutes mes responsabilités wax ko. c'est un recteur qui est contre son institution il ne dafay exécuter commande politique. ok te en toute honnêteté. suñu la falee bopp institution bu mel ni Cheikh Anta Diop ak université bu mëntu doon même bu dee politique yi ñoo la nommé dafa baax nga jiital intérêt wu kër gi parce que intérêt wu université boobu mooy intérêt wu Sénégal gi yépp waaye bu fekkente ni yoo intérêt politique ngay jiital dafa am toujours ñi ngay làq seeni intérêt pour intérêt alors que université boo ci nekkee intérêt wu société bi yëpp d' accord waa léegi université bi nan la def ñu jeexale foofu jox suñu gan nan la def ba ñu tëj ko ñu fay organiser ay défilé de mode. voilà di fa organiser ay concert rap. Mhm. loolu mooy lan en fait. parce que man ba léegi mënu ma comprendre lamb bu amee ñu ni dañuy déployer quinze mille policiers et gendarmes. pour lamb quinze mille. ñuy wane dispositif bi avant le jour ñuy déployer ay moyens université la fa nekk ci ay bâtiment xanaa matul deux cent cinquante wala matul deux cent bu doon bâtiment bu nekk comme ni ñuy sécuriser Auchan ak Total bu ñu nee suba nangam am na mais université bu ñu jëloon franchise boobu lijjanti ko briser franchise bi pour jàng mën a am moi je pense que moo gën fuuf ñu naan respect de la franchise universitaire te jàng amul. non non non franchise loi boobu loi mooy loi 94 79 li mu ci wax sax dafa leer naññ loi bi si boppam article 6 moo nii su. te waxul sax jàngalekat walla walla ndongo dafa ni képp koo xam ne nit nga yaa ngi ci biir université ah, mu am lu xew ba sa kaaraange am problème jafe-jafe yow war nañ la mën a aar war nañ la mën aar mooy. dañ koy jaarale lii daa mel noonu bi UCAD la. dañ lay jaarale. dañ koy jaarale recteur mooy kilifa université bi dafa war a. voté pour que ñi nga xam ne ñooy wat kaaraange bi ñu ñëw. waaw su recteur bi mais ba deful la nga xam ne loolu la ko loi bi euh, euh, laaj mu def su ko deful police si boppam war na mën auto autosaisir ñëw def wat kaaraange rapidement bu jeexee mu dellu. d'accord boole ci nag mais problème boobu amul li nga wax nii effectivement li nga wax c'est tellement juste que kenn du ci teg dara parce que. arène nationale ar bu duñ ne la lutte dina am c'est parce que dañuy gis na parfois dafay am ay violence mais loolu université ça c'est cyclique te lii on peut l'expliquer mën nañu xam lan mooy origine bi jarul ñu dugg ci donc bu amee c'est pas parce que lii xew na man j'étais dirigeant du mouvement étudiant hmm. amoon ay xeex yu fi amoon donc mais honnêtement mënuloo jaar ci la nga xam ne moo xewoon le et puis même loolu gis nga li ñuy wax ci yàqu-yàqu yi dañ koy exagérer. mais bien sûr que dañ koy exagérer. bu ñu demee ba naan naan une bay bibliothèque bi la ñu taal. c'est pas vrai dara du ci dëgg. amphithéâtre parce que dama dem si plat benn plateau ñi ne ma woy dañu lakk ay amphithéâtre ma ne ko non. du chapiteau benn amphithéâtre te boobu noonu chapiteau la c'est un truc mobile boo xam ne ni dañ ko fa placer parce que justement dañu bëggoon répondre à un autre problème une vraie bombe de l'université mooy les les les sureffectifs de l'université ñu def. Euh, ba pare am na ñu bëre bon loolu analyse la ñuy wax ni que lan moo tax ñu ñu ñu ñu tànn dem euh, lakk ji. chapiteau chapiteau droit ñu bàyyi chapiteau fac science. am na ñoo xam ne ne ñoom dañu ne euh, dafa am symbole. Hmm. léegi nag symbole bi lan lay undu man duma ci ànd. mais daal université encore une fois maa ngi ñaan di woote ñi nga xam ne ñoom ñoo jël ndogal li. pour xamal leen ne erreur bu mag a mag a mag la def parce que tey tey tey tey gis nga bu ñu demee décidé na dañuy ubbiwaat sax université bi demee am na xale yoo xam ne dootuñu ñëwati ñoom. dañoo tourné page am na ñu jël gaal gi yàgg na. non am na ñu jël gaal man octobre dama voyagé woon j'étais aux États-Unis mm-hmm. fekkoon naa fi ko nga xam ne ni mooy yoon boobu nga xam ne moo daar yoonu Nicaragua boobu ñuy wax. waaw waaw kooku moom yoon boobu la jël. te c'est étudiant la du étudiant la moom du étudiant. effectivement yoon woowu bëri na ay étudiants yu ko jël. yoonu yoonu Méditerranée bi ñu ko jël tamit bëri nañu. ak xale yoo xam ne ñooñu jëluñu gaal demuñu fenn ñu ngi fii mais ñoom ils sont passés tout simplement à autre chose. ñooñu pare nañ ci. mais responsabilité boobu est-ce que ñi nga xam ne ñoom ñoo ne Sénégal moo leen ñor ba ñu dénk leen ndombal est-ce que ñooñu seen xel nàcc na tuuti ba ñu xam ne ba ñu mën a xam ne. li ñu nekk di yàqal Sénégal dafa bëri surtout ci loo xam ne mooy lu gën a am solo réew mi mooy sa jeunesse mhm. man de kenn mënu ko j'aurais préféré char de combat yi ñu génne woon ñu dugal ko biir université pour assurer la sécurité parce que xale yi seen bopp d'accord nañ ci la ñun nangu nañu ngeen indi policier yi ak gendarme yi ak char de combat yi leen moo mënul tëj restauration xale yi ne leen d'accord nañu ubbi leen sans le coude bu ñu demee ba xam ne loolu mënatuñu lay foofu ñu ne boo léegi sécurité la donc en réalité on ne dit pas la vérité. il y a du mensonge dans cette affaire là moi c'est ça qui Sénégal duñ ko fooyee ku bëgg a def politique nanga def politique. mais wax dëgg yàlla ci loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk te njëriñu Sénégal la avenir Sénégal la kenn waru koo fooyee. politique wala leneen mënul tax nga di ko fooyee.